innaka anta tawaabu rahim tumma salaatu wassalaam ala nabiyina muhammad allazi yaqul xuzu anni manasikakum assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh très chers amis auditeurs par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala puis avec l'aide de notre frère Seyni Diop Je vous propose aujourd'hui un petit aperçu sur le Hajj, le pèlerinage, dans l'espoir qu'il rappelle aux pèlerins les menaces, les manassiks, les actes et les conditions pour un Hajj mabrour, un Hajj accepté et béni. mbokk yu tedd yi baaxoo ànd ak nun ci bis bu tedd bi ànd ak yéen ci ndimbali sunu mbokk Seyni Diop fas yéene taxaw ak yéen ci wàllu aj fàttaliwaa tuuti ci li ci jëm ngir mu mën a nekk yóbbal ci kiy dem Makka mu xam lan mooy manaasik yi lan mooy jëf yi mu war jëf ak yan sart la ko yàlla sartal bu fekkee bëgg na ajam nekk gu nangu mu matal sart yooyu mais commençons par définir le pèlerinage qu'est-ce que le hajj qu'est-ce que le pèlerinage le pèlerinage est un voyage spirituel à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala en réponse à son invitation mbokk yi waaye bala ñuy wey ñu wax lan mooy aj ndax gis nga boo xamul mbir mooy lan mën nga ci sóobu fekk nga juum boo bëggoon melal aj da wax aj ni tukki la tukki jaamu yàlla tukki ruux jóge fa nga dëkk jëm ca këru yàlla ga di kaaba ga nga ni lu tax nga fay dem nga ni yàlla moo la invité moo la fa woo il dit dans sourate euh, le pèlerinage invite les gens au pèlerinage ils viendront des contrées les plus lointaines qui à pied qui sur toutes sortes de montures afin de profiter des bienfaits qui leur sont destinés afin de rendre grâce à Allah en ces jours solennels mbokk yi Alquran wax ñu ca saar wa mu tudde aj mu wax ak baay ibrahim ni ko wa azzin fi nnaasi bil wool nit ñi ñu ñëw aj si ñu ñëw siyaar si kër gi soo leen wooyee yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiq daañu la wuy si ñii dinañu dox ak seeni tànk daa gis bépp xeetu warwaay ñu war kë jëm ci kër gi jóge ci bërëb yi gën a sore nga ni lu tax ñu fay ñëw yàlla mu ni li yashhadu manafia lahum ngir ñu ñëw gis xéewal yi jot ci xéewal yi nga xam ni moom laa leen waajalal waaye est-ce que ci loolu yam mu ni wa yazkuru isma allah fi ayaamin maalumaat ñu sant seen borom tagg ka bàkk ay turam ci bis yi ñu xam tel est donc le cinquième pilier de l'islam après la shahada la prière la zakat et le jeûne de Ramadan mais ce cinquième pilier a une particularité qui est qu'il est obligatoire une fois dans la vie du croyant le Ramadan est obligatoire chaque année La prière est obligatoire cinq fois par jour. La zakat chaque année. Le zikr à tous les instants de notre vie. Mais le ramadan, une fois dans la vie de l'individu, qu'il ait quatre-vingt-dix ans, cent ans, mille ans, il doit le faire une fois. Donc, comme disent les Wolofs, le ramadan est un vrai sanitatu. lii mooy juróomeelu ponk lislaam gannaaw seede ni yàlla kenn la yonent bi alayhi salaam moom la yebal ñu koy roy gannaaw julli mi nga xam ni juróomi yoon ci bis bi lañu la farata asaka mi nekk farata ci ku ko mën at mu ne woor bi nekk farata ci ñi ko mën at bu waaye bu dee aji màkka moom li ko wuute gi ci des mooy benn yoon la nekk farata ci dundu nit bi i nga ni bon rëy na nga ni bon de sànni tàccu la sànni tàccu parce que celui qui l'accomplit de façon incorrecte aura non seulement gaspillé de l'énergie mais il aura gaspillé et perdu du temps et gaspillé beaucoup d'argent Une erreur dans la prière se répare immédiatement. Un jeûne mal fait se compense quand on le peut. Mais pour certaines erreurs du pèlerinage, il faudra reprendre le pèlerinage une année plus tard. mbokk yi sànni tàccu mooy loo xam ni bu la rëccee jeexal nga lu tax aj sànni tàccu mooy ni ki nga xam ni moo koy def bu fekkee yàqule na ci ponk boo xam ni bii kenn mënu ko defaraat moom xoolal li mu yàq ci coono li mu yàq ci temps li mu yàq ci alal li muy tas ci yaakaaram ak yaakaar yi ña nga xam ni ñoom ñooy ay soppeem boo juumee ci julli baabu saxaw yi ma ngi danga koy dal di defar boo boo yàqee sa koor da koy wuutal beneen jamono boo ko mënee saa soo ko mënee waaye njuumte yi yàq aj bu dabee ab nit yàlla nañ ci yàlla musal kooku at ma ca topp la jëm wala beneen jamono bu ko mënee et amis auditeurs seul Allah sait les empêchements qui peuvent arriver en une année qu'Allah nous protège des maladies du manque de moyens de l'insécurité qui peuvent s'interposer entre un pèlerin négligent et la réparation de son pèlerinage, la reprise plutôt de son pèlerinage l'année suivante ou les années suivantes mbokk yi diggante at ak at yàlla rekk xam li fi mën a xew rawatina li fi mën a xew ci ay ngànt yuy gàllankoor nit ba du aji yàlla nañ yàlla musal aar nu ci feebar aar nu ci ñàkk moyen aar nu ci ñàkk kaaraange ndax yii yëpp mooy yi dox diggante nit nag ak aji borom bi dafa ne woon képp koo xam ni mën nag ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci ñi mën a aji di aji mu leen di nangul loolu yomb na borom bi yàlla na nu ko defal للإسلام ركن عز دام شئت للإسلام الإنعام أن تبعث الله Quel est le but du pèlerinage L'objectif. Pourquoi vas-tu faire le pèlerinage Son but se trouve dans le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit pour que vous, les pèlerins, vous soyez témoins des bienfaits d'Allah. liyashhadu manafi'a lahum et le principal bienfait du pèlerinage et même de tous les actes cultuels est de purifier le croyant, de le laver de tous ses péchés et de le rendre digne de recevoir son laissez-passer pour le paradis. C'est le sens de la parole de la meilleure des créatures le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qui dit que le Hajj accepté, le Hajj mabrour, n'a pas d'autre récompense que le paradis. mbokk yi lan mooy jubluwaayu aj lu tax ñuy aj yàlla subhaanahu wa taala wax na ko ca ji ma la wax léegi li yashhadu manafia lahum ngir ñoom ñu ñëw teewe xéewalu yàlla yi wa yazkurullah ñu sant yàlla tagg ka bàkk ka waaye mën nga ni jubluwaayu aj comme jubluwaayu lépp lu nu yàlla sant mooy laabal jaam bi setal jaam boobu ci bépp xeetu bàkkaar fóot ruuxam ba ruuxam sell bu ko defee mu yeyoo nag borom bi subhaanahu wa taala teg ci loxoom laissez-passer ni ka aljanna yaa ngoog bunt bu la neex duggeel loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa ali dinu junj ba mu ne al umra ila al umra kaffaratun lima baynahuma mu ne diggante ñaari umra day far bakkaar yi dox ci seen diggante wal hajjul mabruur nag laysa lahu jazaun illa al jannata mu ne gis nga aj gu ñu nangu moom yàlla du ko faye lenn lu dul aljanna rek remarquez amis auditeurs que le prophète alayhi salam n'a pas dit le pèlerinage donc n'importe quel pèlerinage mais il a dit un pèlerinage accepté hajjun mabrour et un pèlerinage accepté a des caractéristiques mbokk yi li ñuy seetlu ci kàddu yonent bi alayhi salaam mooy ni waxu la ni aj rek yàlla da koy faye aljanna dafa wax aj gu ñu nangu xajjun mabrur aj gu ñu nangu nag dafa am ay melokaan dafa am sifaat la première caractéristique c'est la pureté de l'intention de celui qui l'accomplit al ikhlas imanan wahtisaban il doit fair le pèlerinage parce que a foi en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il espère en ses récompenses. Le verset nous dit, accomplissez le pèlerinage et la umra pour Allah et Allah seul. Surat Baqara mbokk bi njëkk ci melokaanu aj gu ñu nangu mooy ki kay def yéeneem day nekk yéene ju sell nekk yéeney jaamu yàlla lan la ciy jublu imaanan gëm yàlla moo tax mu koy def waxtisaaban ak di xaar yàlla fayka ka ci jëfam ji moom la laaya ji di junj mu ni wa atimmul xajja wala umrata lillahi mu ne na ngeen matal aj gi li ci war lépp def leen ko ak li war ci umra te ngeen def ko te yàlla dong tax bon defoo ko pour wut turu allah ji wala ajaratu defoo ko pour wut ku la fonk defoo ko pour wut bokk ci benn groupe da nga ko def te yàlla rekk tax ni ngay jullee ni ngay woore ni ngay génne asak la deuxième caractéristique d'un hajj mabrour c'est que celui qui l'accomplit le fait en imitant le prophète alayhi exactement comme il l'a fait extérieurement et intérieurement, je viens de le dire, par l'intention. Il a dit, lui, la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Prenez de moi vos manassiks, imitez tout ce que vous faites dans le hajj de moi. Prenez vos manassiks de moi. mbokk yi ñaareelu melokaanu aj bu ñu nangu mooy ki koy jëf da ci roy yonent bi alayhi salaam na mu ko defee noonu la koy defee loolu nag moom mooy bépp jaamu yàlla wax naka mu leer nañ mu ne xuzu anni manasikakum lépp lu ngeen di def ci aj jële leen ko ci man roye leen ko ci man la troisième caractéristique c'est de veiller à l'accomplir correctement accomplir le hajj tous les piliers tous les actes obligatoires du mieux que l'on put et de s'abstenir de tout ce qui est interdit aux pèlerins, aux pèlerins. Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Le pèlerinage s'effectue en des mois connus. Celui qui l'effectue s'abstiendra de relations sexuelles, de flirt, de conversations à caractère sexuel, de toute désobéissance, de tout acte indécent de toute dispute. Donc, il doit maîtriser ses instincts, tous ses instincts. ok ñetteelu melokaanu aj gu ñu nangu mooy ki koy jëf bu koy def ponk yépp ak wareef yépp da koy def na mu ware te yépp lay def lépp lu ñu tere ci aj day góorgóorlu bàyyi ka kooku moom da koy bàyyi li ñu ko sant moom mu defe ka na mu gën a mane na mu gën ngir wut lu neex borom bi ak wut lu dëppoo ak ni yonant bi alayhi salaam jàngale wax na ko moom borom bi subhaanahu wa taala mu ne alxajju ashhurun maalumaat aj ci ay weer yu ñu xam la muy korite diggi ak fukki fanu tabaski fa man farada fihinna alxajj fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xaj mu ne képp koo xam ne kii décidé na aji ba nga ko décidé rek génn goo sa kër mu ne góor loolu nga commencé fala rafas nga not sa lépp lu jëm ci wàllu sëy sa bànneexu sëy not ka bu ko def bul jëm ci lu ci jëm bu ko waxtaane yaa nga ca màkk bu mu jaar sa xalaat wala fusuq bépp xeetu mooy na nga góorgóorlu bu ko def wala jidaala bul xuloo bul xiiroo bul ŋaayoo jamono boo xamee ne yaa ngi soobu ci aj bon nga ni kii aji li ko yàlla di sant mooy notal sa bakkan notal sa bakkan et le verset continue il dit tout bien que vous faites Allah le sait emportez des provisions pour votre pèlerinage Mais la meilleure provision est la taqwa. Faites donc preuve de taqwa envers moi. Si vous êtes doué d'intelligence mbokk yi laaya ji wey mu ni wa ma tafaalu min xayr yaalamhu llah jamono bi nga nekkee ci aj xamal ni dara umpul yàlla ci loo mën a def ci lu baax lu tuuteeg lu rëy yàlla gis nag wa tazawwadu waaye na ngeen yóbbalu nag fa inna xayra zaadi taqwa te ngeen xam ne bi gën ci yóbbal yi mooy taqwallahi mooy bàyyi li mu la tere def li mu la sant ci sa kàttan wattaquuni yaa ulil albaab na ngeen ma ragal yéen bu fekkente ni boroomi xel ngeen suratul baqara laaye téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ainsi soit-il dit le verset 30 sourate Hajj en ce qui concerne les interdits celui qui respecte strictement les interdits les limites sacrées d'Allah sera bien apprécié auprès de son Seigneur concernant les ordres le verset 31 nous dit ainsi soit-il Celui qui vénère respecte les étendards d'Allah démontre simplement la piété de son cœur mbokk yi laaye fanweer ak fanweer ak benn suratul xaj dikk wax ñu fanweer wax ñu ci li jëm ci tere yi mu ne daalik ni rek la mbir mi di tëdde nag wa man yuazim xurumatillah fa huwa xayrun la képp koo xam ni kii li ko yàlla tere respecte na ko mandarga yàlla yi tere yàlla yi bàyyi na leen fa huwa xayrun lahu mu ne kooku mooy gën ci moom kooku yiw rek la fay jële li jëm ci santaane yi mu ne daalika nii rek la mbir mi di tëdde wa man yuazim shaa'ir allah fa innaha min taqwa alqulub képp koo xam ni kii fonk na wekk na respecté na mandarga yàlla yi ko yàlla di sant mu jox ko cër fa innaha min taqwa al qulub kooku kooku mooy ki am ragal yàlla ci xolam te waxoon na ni li ma saga soxla mooy ngeen yóbbaloo ragal yàlla te ragal ma retenons donc que le hajj le pèlerinage est un voyage spirituel un déplacement cultuel ce n'est pas un tourisme religieux tout pèlerin doit faire un effort physique et spirituel afin de se concentrer corps et âme sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur le prophète alayhi salam, mais sur Allah qui le reçoit, qui a décidé de l'honorer en tant qu'il est son hôte, son invité d'honneur mbokk nañu jàpp bu baax ne aj tukkik jaamu yàlla la tukkik ruux la du tourisme rekk dem wëndeelu seeti bërëb ya fii moo doon Uhud fii mooy Kaaba gi fi moom mooy bërëbu Ibrahim déedéet loolu yóbbuwu la fa bépp ajikat moo xam góor la moo xam jigéen li ko war mooy góor góorlu ci boppam not bakkanam tàggat yaramam ngir léppam booloo mu jublu ci yàlla subhaanahu wa taala donc jublu ci ni nga xamee ne noonu la war a royee yonent bi alayhi salaam yëg nag yëg nag di puukare ne ah man mii kët gan laa te gan laa goo xam ni yàlla moo ma invité bon yow da nga nekk VIP kooku mooy vrai importante personnalité ki yàlla woo ni la ñëwal ma jox la samay xéewal ñëwal nga bàkk ma tagg ma bépp jamono boo nee labbayka ñu bindal la lu kenn xamul ci yiw boo nee subhanallah ñu bindal la boo jullee ci yonent bi alayhi salaam ñu jox la lu dul jeex ci aljanna yi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci way dégg yi mën a topp wërsëgal nu boole ñu ci ñi muy invité di leen teral ci këram yi bu leen teralee nangu leen loolu yomb na borom bi yal nanu ko defal ya rasulallah Amis auditeurs, notre question suivante c'est combien de types de hajj y a-t-il? Comment fait-on le hajj? Il y a trois formes d'exécution du hajj. C'est le tamattu, le khiram et le ifrad. Ces trois types ont les mêmes piliers qui sont le ihram, c'est-à-dire la sacralisation, de mettre un habit non cousu, blanc, obligatoire pour les hommes, facultatif pour les femmes, le sa'i, c'est-à-dire le va-et-vient, la marche entre Safa et Marwa, la station de Arafat, de Zawal au coucher du soleil ou à la nuit tombée, le tawaful ifada autour de la Kaaba mbokk yi ñaata xeetu aj moo am yonent bi alayhi salaam jàngale ci ñett tamattu qiraan ifraad waaye ñoom ñett ñi ñëpp ñoo bokk seen ñeenti ponk yi muy ihraam te mooy armal armal bu ñu ko waxee rek mooy dugg nga ci urum bi soobu nga ci jaamu yàlla gi comme niñ naan kàbbaru armal ci julli kooku mooy dootoo sol yére bu ñu ñaw dangay sol yére néew yi sol yére taxaw bis nga def saayu mooy dox diggante safa ak marwa taxaw taxawaayu arafa zawaal ba jant bi so tawaaful ifaada ci kaaba gi bu dee umra il a trois piliers le ihram le sa'yu et le tawaf donc il n'y a pas de station de Arafat mbokk yi bu dee umra moom ñetti ponk moom lay am benn bi mooy ihram benn bi mooy dox safa ak marwa bi ci des mooy tawaaf comment se fait chaque forme de hajj le tamattu dans cette forme le pèlerin fait d'abord le ihram et il le fait dans les mois du hajj qui sont Korité Shawwal digg tabaski zul qaada et les di premier jours de tabaski zul hijja il fait son ihram au lieu indiqué et dit son choix me voici pour une umra mutamattian jusqu'au pèlerinage ok bu dee ci njëkk muy tamattu ni ñu koy defee mooy xaaj bi wala ajaa bi dafay armal ci biir weeru aj yi nag mooy korite diggi tabaski ak fukki fan yi tabaski mu ihraam armal ci bërëb bi ñu ko ko sante wax yéeneem ci tamattu labbayka umratan mutamattian ila al hajj et commence le talbiya Arrivé à Makka, il procède à la Umrah. Il fait le tawaf de la Kaaba, le sa'yu, sept va-et-vient entre Safa et Marwa, après quoi il ou elle se désacralise et se rase ou diminue ses cheveux. À partir de cet instant jusqu'au pèlerinage, il est, il s'est désacralisé, ce qui lui était interdit, lui est redevenu autorisé mbokk yi def tamattu yegg na Makka waxoon na ni dafay umra mu daal di jublu ci umra tawaaf kaaba gi dox safa ak marwa bu ca pare mu daal di génn ci armalam li ñu ko tere woon wëlbatiku daganti il reste ainsi jusqu'au huitième jour Hajj et ou la Haja procède au ihram pour son Hajj. Il termine son Hajj par un sacrifice d'une bête. S'il n'a pas les moyens de sacrifier une bête, il jeûnera trois jours des jours du Hajj à Makka et sept jours quand il rentrera dans son pays ou chez lui. noonu lay nekkee nekkaat nag euh, jullit ordinaire di sol yére yu ko neex di lekk lu ko neex di xeeñ parfum ba juróom ñetteelu fan bi mu daldi armal nag pour ajam bu jeexalee aj googu day rey gàtt bu amul lu mu jënde gàtt rey ka mu weer mu woor ñetti fan ci fanu aj yi bu ñibbee këram mu woor ñaari fan muy fukki fan concernant le khiram lui aussi il a un sacrifice obligatoire le pèlerin le kharin qui fait le khiram fait le ihram avec l'intention d'accomplir la umra et le hajj regroupés Lui, il formulera son intention en disant labbayka umratan wa hajjan. Me voici, mon pour une umra et un hajj. labbayka umratan wa hajjan bokk bu dee xaarin bi mooy kii def xiraan moom buy day def ihram ca fa mu war defe mu ihram ngir boole aj ak umra buy wax yéeneem labbayka umratan wa hajjan maa ngi lay wuy si sama borom maa ngi nii ñëw naa wuy si la yéene umra ak aj et à partir de ce moment il commence le talbiya arrivé à Makka le muxaarin le pèlerin qui fait le xiran accomplit le tawaf d'arrivée ou tawaful qudum puis fait le sa'i du pèlerinage et de la omra ensemble c'est-à-dire sept va-et-vient entre Safa et Marwa mbokk yi lay tàmbalee di talbiya labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk bu demee nag Makka bu yeggee Makka mu dal di def tawaaful qudum mooy nuyu ji ni ñu ko mën a waxe kaaba gi wër kaaba gi ngir wërug yegsi gi daw safaak marwa safaak marwa woowu mooy boole ajam ak umraam seen safaak marwa muy juróom ñaari bàggante diggante safa ak marwa ce pèlerin qui fait le xiran garde son ihram reste en état de ihram jusqu'au huitième jour où il entame le reste des actes du hajj Il ne refera pas le sa'i pour le pèlerinage car il l'a déjà fait mbokk noona moom mi def xiraan day wey ak armalam ba juróom ñetteelu fan bi yow mu tarwiya mu daal di sóobu nag ci jëfi aj yi waaye waxoon nañu ko sa'yu mooy dox safa ak marwa du ko defaat ndax def na ko ba noppi kanta quant au Hajj c'est le Hajj où le pèlerin formule l'intention, quand il fait son ihram, d'accomplir uniquement le Hajj. Labbayka hajjan, dira-t-il, me voici Seigneur pour un pèlerinage. Et il commence son talbiya. mbokk bu dee ifraat ki koy def moom li bu bu ixraamee day wax yéeneem labbayka xajjan yow suma boroom wuy si naa la ngir def ab aj dal di commencé nag talbiya ga labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk buy arrivé à Makka le pèlerin fait le tawaf al qudum le tawaf d'arrivée et le sa'i du hajj après il garde son ihram jusqu'à la fin du pèlerinage bokk moom moomu di def ifraat bu yegsee Makka def tawaafam tawaaful qudum def sa'yu ngir aj noonu lay wéyee ak ihraamam mooy armalam ba baa muy jeexal aj voici amis auditeurs la formule complète de la talbiya telle que la meilleure des créatures. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, l'a formulée et enseignée pour le Hajj et la Umra. Il consiste à dire labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak qui signifie Me voici Seigneur, me voici. Me voici, tu n'as point d'associé. La louange, les bienfaits et la royauté t'appartiennent à toi seul. Tu n'as point d'associé. talbiya mooy labbayka bi yonent bi alayhi salaam jullit ñi di ko defe noonu dara du ci soppeeku mooy labbayk allahumma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk inna alhamda wa nicmata lak wal mulk laa sharika lak labbayk allahumma mooy wuy si naa la yow suma boroom ci sa woote bi sa gana ngi nii labbayka laa sharika laka labbayk wuy si naa la yow mi nga xam ni amuloo kenn kuñ lay dendaleel amoo ndend amoo maas amoo moroom wuy si naa la inna alhamda wa nicmata laka wal mulk bépp xeetu xéewal bépp nguur bépp xeetu cant yow rekk yaa ko moom laa sharika lak amuloo ndend amoo moroom amoo maas yow yaay kenn yow dong di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñi ci ñiy wéetal seen borom wërsëgal nu boole ñu ci ñiy yëg màggaayu borom bi subhanahu wa taala nu yóbbu ñu ci bërëb yu sell yi te may nu nu yëg ni ñu ngi ci bërëbu teddangal ñu ngi nekk ci VIP wu invité wu yàlla yi loolu yàlla subhanahu wa mën na ko yomb na ko yàlla na nu ko defal لك التسليم من يد التعظيم زارك التسليم من يد التعظيم يحمل التكريم بصلاة الله يا رسول الله Voici, amis auditeurs, la chronologie des actes du Hajj. Le Hajj commence le huitième jour de Zulhijja ou du mois de Tabaski. Ce jour-là, on l'appelle Yawmu Tarwiya, le jour de la boisson à satiété. ak juróom-ñetteelu fan ci weeru zulxijja lay commencé mooy weeru tabaski bis boobu ñu ngi koy tudde yow mu tarwiya ndax ca njëkk bu gaañi daan waaj a soobu ci aj dañuy dem naan xam nga foofu ci désert bi la ñu nekk la mutamatia se met en état de ihram avant zuhr à son hôtel u au lieu où il se trouve le deuxième acte c'est de se rendre à Mouna où tous ceux qui font tamattu qiran et ifrad se rendent la matinée pour prier là-bas les horaires normales de Zuhr Tisbar Asr Takusan Maghrib Timis et Isha Gay mais en réduisant les prières de quatre rakas à deux rakas il passera la nuit à Mouna jusqu'après la prière de soub mbokk yi bi ci njëkk mooy ihram nit ki kii def tamattu war na ko def ca ihramam balay tisbaar mu defe ko bërëb ba mu nekk otelam wala fu mu mënti nekk rek ñaareel bi ñëpp ujjaaj yëpp ñiy def tamattu xiraan ifraad ñoom ñépp ci suba ga dañuy jubal muna foofu lañuy ñuy jullee tisbaar takkusaan timis ak gée benn bu ne ci wax waxtoom waaye wàññi julli ñeenti rakkaa yi def ko ñaar fanaan muna ba ca suba ga le lendemain ce sera le jour du stationnement à Arafat après le lever du soleil du neuvième jour où il était à Mouna, le pèlerin quitte Mouna pour Arafat. Il y fait les prières de Zuhr et Asr regroupées et aucun pèlerin ne devrait quitter Arafat qu'après la tombée de la nuit. mbokk yi ñetteel bi mooy waqfu Arafa taxawaayu Arafa bu jant bi fenkee ci muna ci juróom-ñeenteelu fan bi ujaaj yi dal di fay bëmbe jubal arafa arafa la jullee tisbaar ak tàkkusaan boole ka fa la nekk di tagg yàlla di ko bàkk di ko kañ ba gannaaw timis ba jant bi so alors ils se rendent à Muzdalifa après le coucher du soleil. Arrivés à Muzdalifa, les pèlerins se dirigent vers le Mash'ar al-Haram. Ils font les prières de Maghrib et Isha, raccourci Isha et Maghrib et Isha regroupés. Ils passent la nuit à Muzdalifa jusqu'à la prière de Sopp. Le pèlerin ramasse en cours de route sept petites pierres qu'il va lancer sur la Jamratul Aqaba à Mouna et le reste des pierres il les ramassera à Mouna même mbokk yi jóge na Arafa ñëw na Muzdalifa gannaaw jant bi so jubali ca Masharul Haram julli timis ak gee boole leen wàññi gee fanaan musdalifa ba julli fa suba war a jubluwaat nag muna for juróom ñaari xeer fii ci musdalifa yóbbaale ka ngir jamratul aqaba ca muna bu yeggee muna falay fore la ca des ci ay xeer lu war a jege ci ñaar fukk jëm ñaar fukk ak benn dès son arrivée à Mouna le lendemain il procède à la jamratul aqaba égorge sa bête de sacrifice ça c'est pour ceux qui font le tamattu et le khiram se rase ou coupe une touffe de ses cheveux les trois jours de les trois jours de la tabaski il procédera le premier jour au, à la lancée du jamratul oula sur la petite stèle Le deuxième jour, Jamratul Wusta sur la stèle moyenne et le troisième jour, Jamratul Aqaba sur la grande stèle mbokk yi na bu fa ujjaaj yi yeggee li ñuy def mooy dal di jublu ci sànni jamra jamratul aqaba ñi nga xam ni ñoo doon def tamattu ak euh, xiraan rey seeni gàtt daldi watu walla ñu wàññi ñetti fanu tashriq mooy ñetti fanu tabaski yi bis bu nekk sànni jamra la bis bu njëkk bi jamratul ula mooy ci bu gën a ndaw ñaareel bi jamratul wusta bi digg doomu ñetteel bi nag jamratul aqaba mooy jamra bi gën a rëy il retourne à Makka après avoir fini les jamra le pèlerin fait le tawaful ifada ou si vous voulez tawaful wida le tawaf d'adieu le pèlerinage prend fin quand le pèlerin finit tous ses lancers de jamra se rase et fait son tawaful ifada à partir de ce moment tout ce qui est interdit pour le hajj est levé même les relations intimes mbokk gannaaw jamra yi jullit bi daal di jóge Munaa nag jubal Makka Makka ngir def tawaaful ifaada wala tawaaful widaa tàggatoo ji nag ak borom bi subhaanahu wa ci waxin tàggatoo ji ak kër gu sell gii di kaabatul kiraam aj gi jeex na boo xamee ni bii ujjaaj yi sànni nañu seen jamra yi watu nañu def nañu tawaaful ifaada wër kaaba gi ngir ni ñu ngay wëlbatiku dellu ci fa nu jóge woon bu ko defee rekk lépp li nga xam ni jamono boobu tere woon nañ ko aji aj ji loolu teggeeku na waaye ba mu des nag not ba kanam ci xuloo xeex xiiroog ngaayoo ak soobu ci moy borom bi subhaanahu wa ci bépp xeetu moy bu mu mënti doon nu ñaan yàlla subhaanahu wa mu wërsëgal nu boole ñu ci ñiy dégg di mën a topp wërsëgal nu boole ñu ci ñi muy yenkeyal ñu joxe ponk bi mu nangul leen def ka xajjan mabruuran wa damban maxfuuran wa sacyan mashkuura قل يا مدمار أيها المختار أنت باب الله quant aux invocations qui accompagnent les actes du Hajj et de la Umra, les voici. Pour le ihram qui consiste à prendre un bain rituel, à se raser les poils du corps, à se couper les ongles et à porter son ihram, puis à faire deux rakas où l'on récite dans la première Fatiha et Qul ya al-Kafirun, dans la deuxième Fatiha et Souratul Ikhlas, et qu'on donne son intention de faire telle ou telle forme de hajj ok bu dee ihram mooy nit ki day sangu wat ay kawaram dagg ay wewam sol ihramam julli nag ñaari rakkaa ca bërëb ba nga xame ni foofu mooy miiqaam jàng fatiya ak xul yal kaafiruun ci rakk bu njëkk bi fatiya ak xul wallahu ahad ci ñaareelu rakk bi dal di yéene euh, ban aj lay en entrant à Makka le pèlerin rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala lui demande son pardon et d'accepter son hajj. En entrant dans la mosquée par la porte Babou Salam, on fait la prière que l'on fait pour entrer dans toutes les mosquées, c'est de dire aouzu billahi al-azim wa biwajhil karim li zunubi wa abwaaba rahmatik bokk dugg Màkka bi day tagg yàlla di ko bàkk di ko kañ di ko sant ñaan ka mu jéggal ñaan mu nangul ka li te mooy aj buy tàbbi ci jàkka ji tàbbee baabu salaam jiital tànku ndeyjooram wax li ñuy wax ci bu ñuy dugg bépp jàkka ak la ñuy wax ci bu ñuy génn bépp jàkk wax auzu billahi alazim wa bi wajhihi alkarim wa sultaanihi alqadim min alcheytaani alrajim bismillah walhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahuma axfir li zunubi waftax li abwaaba rahmatik quand on formule son intention du tawaful qudum on pourra dire Seigneur l'intention de faire les tours de la Kaaba facilite-les-moi et accepte-les allahuma inni anwi tawaafa baytika alharam fa yassirhu li wa taqabbalhu minni tawaaful qudum ujaaj bi mën na wax ni allahumma inni anwi tawaafa bayti alxaraam fa yassirhu lii wa taqabbalhu lii yow yàlla maa ngi yéene wër kër gu sell gi yombalal ma ko te nangul ma ko pendant le tawaaf il pourra dire Seigneur que soit agréé mes péchés pardonnés et que mes efforts soient couronnés de succès allahumma aj'alhu hajjan mabruran wa zamban maghfuran wa sa'yan mashkura bu nit ki dee tawaaf la muy ñaane lu ko neex waaye li gënoon a yomb mooy allahumma aj'alhu hajjan mabruran yow yàlla defal ma aj gu ñu nangu wa zanban maxfuuran ak bakkaar yu ñu far baal leen wa sa'yan mashkuuran ak jëf joo l'invocation entre le coin yéménite et le hajarul aswad on dira comme le verset de la sourate al-Baqarah Seigneur accorde-nous les bienfaits dans ce monde et dans le delà épargne-nous du châtiment de l'enfer et cette invocation on peut le faire à toutes les étapes du hajj et de la umra mbokk diggante ruqu nit ba ak uh, koñ bi nga xam ni foofu la xajarul aswad nekk diggante soosu yonent bi alayhi salaam dafa daan ñaan mën nañu wax comme moom rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axira axirati xasanatan wa qina azaba annar yow yàlla defal nu yiw ci àdduna defal nu yiw ci alaxira te aar nu ci mbugalam safara ñaan gi moom ñaan jaami la goo xam ni fu ci ni toll rek mën na ko ñaane ëmb na lépp quand on procède aux deux raka au maqamu Ibrahim on fera Fatiha et Qul kafirun dans la première raka et Fatiha et suratul Ikhlas dans la deuxième raka mbokk ñaari rakkay maqamu Ibrahim dañ cey jàng fatiya ak xulyaayul kaafiruun ci mu njëkk bi ñaareelu rakk bi fatiya ak suratul ixlaas quand va boire le zamzam pour la première fois ou chaque fois on dira bismillah après avoir bu on dit alhamdulillah et on fait tous ses vœux day tàmbalee toujours sant yàlla bismillah bu pare mu ne alhamdulillah zam-zam ñaan sa bépp soxla ak bépp soxla yi ku la yóbbante ay soxla dans la marche entre Safa et Marwa quand on se dirige vers Safa et Marwa on dira le verset Safa et Marwa font partie des étendards d'Allah je vais commencer par où Allah subhanahu wa a commencé bu nit ki jubale safa ak marwa ngir saayu bu ca jëmee day wax inna safa wal marwata min sha'airillah abda'u bi ma bada allahu bi safa ak marwa ci mandarga yàlla yi lañu bokk damay tàmbalee fi yàlla subhanahu wa taala tàmbalee l'intention du saayu on dira Seigneur j'ai l'intention de faire le sa'yu sept fois entre Safa et Marwa sa'yu de hajj ou sa'yu de umra facilite-les-moi et accepte-les mbokk bu dee daw Safa ak Marwa nit ki bu koy yéene mu ne allahumma inni anwi as-sa'ya bayna Safa wal Marwa sab'atu ashwatin lak sa'ya xajjin fa yassirhu lii wa taqabbalhu minni wala sa'yu umratin yow yàlla maa ngi yéene dox diggante safa ak marwa fas yéene def juróom ñaari baage dawug aj nag wala daw umra yombalal ma ko nga nangul ma ko le dua pendant le sa'i consisterait à dire Allahu akbar trois fois Allah seul est Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Il est seul, sans associé. À lui la royauté et la louange. Il est capable de tout. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Il a tenu sa promesse, a donné la victoire à son serviteur. Lui seul a mis en déroute les coalisés. Et ensuite, on peut demander tout ce qu'on veut à Allah subhanahu tant que c'est licite. mbokk yi duwaawu sax jullit bi mën na wax la yonent bi alayhi salaam waxoon allahu akbar ñetti yoon laa ilaha illa allahu waxdahu laa sharika lahu lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaaba mu wax yàlla rekk a màgg ñetti yoon amul benn bu ñuy jaamu ku dul yàlla moom dong amul kenn ku ñu koy dendal moo yor nguur moo yeyoo cant moom mooy ki man lépp amul benn buur bu dul yàlla moom dong li mu digoon jaamam bi def na ko dimbali na ko jox ko ndam ci kaw noon yi moom rek moo tasaare moo moo gañe ñi nga xam ni ñoo man ko woon di xeex yonent bi alayhi salaam ak di xeex diine lors de la station à Arafat on formulera son intention en disant Seigneur j'ai l'intention d'accomplir la station à Arafat facilite-la moi et accepte-la bu dee taxawaayu arafa jullit bi da kay yéeneel allahuma inni anwi wuqufa arafata lakka fa yassirhu lii wa taqabbalhu minni yow yàlla maa ngi nii di yéene taxaw taxawaayu arafa bi te yow rekk tax yombalal ma ko te nga nangul ma ko la durée du stationnement on répétera la shahada on fera le zikr Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, seul sans associé. À lui la royauté, à lui la louange. Il est capable de tout. Seigneur, accepte mon pèlerinage, pardonne mes fautes et accorde-moi de bonnes actions, accepte-les. Seigneur, accorde-nous le meilleur dans ce monde, le meilleur dans l'au-delà. Épargne-nous du châtiment de l'enfer. Donc on fera durant toute cette journée la shahada récitation du Coran prière sur le prophète alayhi salaam et formuler des demandes bokk yi arafa bis la boo xam ne bisu ñaan la ak bàkk yàlla subhanahu wa taala ñu nga naan laa ilaha illa allahu waxda laa sharika lahu yàlla moom rekk ay yàlla moom dong amul kenn ku ñu koy bokkaaleen lahul mulk wa lahul moom mooy boroom nguur mooy yeyoo cant wa huwa ala kulli shay'in qadir moom mooy ki am kàttan ci lépp allahuma asaluka xajjan mabruran wa damban maxfuran wa amalan saalihan maqbula yow yàlla defal ma aj gu ñu nangu baal ma samay bàkkaar yénkeyal mu may jëf-jëf yu sell te nga nangu leen rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasanatan wa qina azaba annaari yow yàlla defal ma yiwu àdduna bi ak xéewalu àllaaxira yi te nga musal ma ci mbugalam safara amis auditeurs pour les Jamra à Mouna on accompagnera chaque lancer de pierre par Allahu Akbar Allah seul est grand yi bu jullit bi sànni jamra jamra bu ne dafay wax Allahu Akbar pour le doigt après la Jamratul Aqaba on dira Seigneur je fais cette Jamra car je crois en toi en ton Coran je le fais conformément à la sunna du prophète Muhammad paix et salut sur lui Allah seul est grand qu'Allah soit infiniment loué matin et soir il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah seul sans associé Seigneur, faisons un pèlerinage agréé. un pardon pour mes péchés et une bonne action agréée mbokk yi ñaanu jamratul aqaba jullit bi mën na wax allahumma tasdiqan bi kitaabik wattibaan li sunnati nabiyika muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah allahumma ajalhu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkura pour le tawaf wal ifada on formulera son intention en disant Seigneur j'ai l'intention de j'ai de faire le tawaf de ton sanctuaire sacré facilite-le-moi et accepte-le après le tawaful ifada on dira celui qui t'a révélé le Coran te ramènera chez toi sain et sauf mbokki tawaful dañu koy yéeneel allahumma inni anwi tawafa baytika alharam tawafa rukn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 Je veux rappeler que le pèlerinage, cinquième pilier de l'islam, est une adoration obligatoire pour ceux qui ont l'aptitude physique, les provisions licites et l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant les rites comme le prophète alayhi salam a dit prenez de moi vos rites du pèlerinage mbokk yi ngir yëkkati suñu jataayu tey wax ni bon aj mooy juróom meelu ponkeelu lislaam jaamu yàlla la goo xam ne dafa aju ci kàttan aju ci alal aju ci yéene bu sell ci wut ngërëmal borom bi subhaanahu ci jëfe aj gi naka yonent bi alayhi salaam waxe xuzu anni manasikakum roy leen ci man seen jëfi aj suratu Ali Imran a c'est une obligation pour ceux qui en ont les moyens d'accomplir le pèlerinage pour la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala loolu la di wax suratu Ali Imran mu ne walillahi ala nnaasi xijju lbayti man istataa ilayhi sabila war na ci nit ñi seen digganteeg yàlla ñu ziyaare ji këram gi aji ci kër gi ci ku man am yoon la seule intention du pèlerin doit être d'accomplir une adoration au même titre que la prière le jeûne la zakat la shahada autrement son pèlerinage risque simplement d'être refusé rejeté mbokk yi yéene ujaaj bi warul nekk lu dul jaamu yàlla subhaanahu wa ni julli ni woor ni asaka ni shahada lu ko moy mën nay am aj googu dañu koy gantal delloo ko la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui a dit qu'Allah subhanahu répond à certains quand ils disent labbayk Allahumma me voici Seigneur Il leur dit pas de labbayk pour toi. Tu n'es pas le bienvenu. Tes biens sont illicites, tes provisions sont haram, ton moyen de transport est haram. Retourne d'où tu viens avec tes péchés, privé de toute récompense et ne t'en prends qu'à toi seul. mbokk yi yonent yi alayhi salaam na am na ci ñoo xam ne bu ñu nee labbayka allahumma yàlla daf leen di tontu ni leen la labbayka wala saadayka yow moom sa labbayka kenn nangu ka fii bu fi xaml bu fi jege kas bu ko xaraam sa alal dafa xaraam zaadu ko xaraam sa yóbbal araam raaxilatu ko xaraam li indi ba fii dafa xaraam farji mazuran gayra majur wa ab bi ma yasuuk dellul fa nga jóge woon ak say bàkkaar doo am benn payoor doo am benn ngërëm te nag booy yedd yeddal sa bopp dong à d'autres labbayka Allah subhanahu wa ta'ala reçoit le bienvenu car ton transport est licite tes habits sont licites tes provisions sont licites tu peux rentrer chez toi agréé lavé de tous tes péchés réjouis-toi mbokk yi am na ñeneen buñ ne labbayka yàlla subhaanahu wa taala tontu leen ni leen labbayka wa saadayk yow moom dal sil yegg sil tey ma teral la yow wuyu naa la raaxilatuka xalaal sa warwaay dagan na sa dagan telew sa yóbbal dagan na bon yow far ji majuuran xayra ñibbil sa kër ak samay payoor say bàkkaar ñu sippi ka wa abshir bi ma yasurruk te nga bég nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal na yàlla nangu sunuy jaamu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim yow yàlla nangul nu yow miy dégg te xam rabbana wajalna muslimayni lak yow yàlla defal nu nekk ay jullit wommatul la wa min durriyatina ummatan muslimatan lak defal sunu njaboot ñu nekk ay jullit wommatul la wa arina manasikana te nga wan naka la ñuy jëfe sunuy jëfi aj wa tubb alayna nangul sunu tuub innaka anta tawaabu rahim yow yaay aji nanga konu tuubi وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد يا عظيم الجاه أظلك الممدود ديره مقصود ظلك الممدود ديره مقصود أنت يا محمود من سيوف الله